abit baa ngi wax ak ñaari mbër yi Toubacouta Malem Niani Toubacouta à droite Malem Niani à gauche Malem Niani Toubacouta huitième combat de la soirée Toubacouta door nañu ko eh Malem Niani door na Toubacouta na door ko Toubacouta eh, Toubacouta jël na ku te Malem Niani dina ko doomu daanu Malem Niani dina doog Toubacouta jàppante nañu eh, Malem Niani mi affaire la de ma ngay rasu Malem Niani Toubacouta Malem Niani tànk ba Malem Niani Toubacouta Toubacouta lu mu a def nii Toubacouta Malem Niani ñoo ngay xeex dina ko dóor dina ko dóor dóoraat na ko Malem Niani Toubacouta Malem Niani Toubacouta Malem Niani Malem Niani jël na ko lu mu koy def Malem Niani Toubacouta ak xeex nu léegi xeex bu neex bëre nañu ñoom ñaar Toubacouta Malem Niani Toubacouta Malem Niani Toubacouta dóor yi mi dóor baax na braqué na ko moo ngi koy braqué da ko bëgg a jeexal Toubacouta Toubacouta ndànk Toubacouta ndànk Toubacouta Malem Niani ñoo ngay bëre waaw na ko Malem Niani takk na Toubacouta da koy daan Toubacouta daan Malem Niani Toubacouta daan Malem Niani waaw waaw ma supporter ya supporter yaa ngi noonu xoolal Gris 2 Gris 2 ànd na naa ma jaraloon. lii foo rek lii ay combat préliminaire la rek. lii du dara. non mais sport la foo moom mënul ñàkk foofu dañ doon def ay carton ba ñu ñuy dóor. mais mobilisation bi la li nga andi dafa bëri. parce que grand combat laa man mbaru mbaru mbaru réew laa. sama mag a ngi nii giri deux. def si la dinaa ko topp. lan lay wan ni foom góor la sport la dañuy ñëw bëre jaayante doole du xeex bu jëree xeex ñu xeex bu jëree bëre ñu bëre loolu kese la ni nga ko daane ñëwal ci ni nga ko daane non dama ko bàyyi mu takk ma kott ko tëdd ak moom dama ko bu doole xale laa nga wér ko poids bi waaw ah? Balla laa bëgg ñu jox fils Balla ban fils Balla men nga li nga wax bu baax. mais bii mooy yow xanaa gars yi ñu gars yi ñu fii sa baal la kat. bu mu jël ci ay drapeau ak fi muy bëre ñooñu bërewuñ ko man mii sax di wax ak ñoom bërewu bërewu ma ko kon ñooñu ñooy ay adversaire am dañ koo xamul kanam raw lu